l'islam mm-hmm. dama bëggoon laa ci suñu yaay jooju toog ñetti question su ma ci mënee tontu mm-hmm. euh, dama gis fi tool nii sénégalais ah. yi ñu bëri dañuy dal sëriñu internet yi parce que mm-hmm. dañ naan dafa bëri ñoo xamante ne dañ ciy lekk seen xaalis surtout côté extérieur dëgg la waa allo allo yaay maa lay nuyu animatrice la dama lay suivre uh-huh. moo tax nag tey ma ne xaama dugg ma ne dafa bëri Uh-huh. internet bi fi mu toll nii sëriñ si dafa bëri pëcc xoo. wallaahi. ku jug ne sëriñ laa. Uh-huh. te ñu bëri internet bi tey jii ñu bëri ñu ngi ciy tourné dañuy lakk xaasu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk inter uh-huh. extérieur tey loolu yow lan nga ciy wax en tant que ñaankat. waaw pour que nga dalalaat xelu sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñooy ñaw di ñaanu ndeysaan ndeysaan xam nga rek liñ lay wax nit ki. dara xajul ci bàmmeel loolu laa yaakaar. te nit ki defar ko mu leer ni la yow da nga koy nax. yow xam nga ni yaa ngi koy nax mm-hmm. loolu moom mm-hmm. sotti ca yaakaar naa li nit doonul taalibeem mm-hmm. doon sëriñam dëgg la ca bu nu bu nu naxante nan waxante dëgg internet bi boo ko xoolee li naan lu waay def rek ñu a nga lay toppandoo dañ ci sant yàlla nag waaye ki lay toppandoo bu fekkee mi ngi ciy jariñoo di ci jariñ nit loolu amul benn problème mais tey guy gi man dong maa ko génne woon toog ci sama guy du dugg ak génn léegi internet bi yépp guy la ñépp guy la noonu lan lay toppandoo mais jàngul du tari ku mm-hmm. jàng mu tari mm-hmm. waaye toog ci saal bu mel ne bu kii ma invité mm-hmm. ngay wax na la neex dafa <laughs> neex man amul fenn foo xamante ni liggéey naa fa sol yëre bu baax wala ma liggéey fa ci ci saal déedéet benn tenue bi rek lañuy gis benn tenue ma ñëw aussi yaay comme que internet bi ñu bëgg nga xoolal leen bëri na tey ji ñu gis dimanche bi nga xamante ne génn nañ ko mu am combat bu amoon bëri coow mbër bi génne na dañ koo xeex dafa wéet mu di Sa Thiès magam aussi war a bëri di Balla Gaye Uh-huh. tey ji ñu bari na na delloo avance tafaatin ndax uh-huh. dayoo tafaatin te Balla aussi bu ñu waxantee uh-huh. depuis kombaam yu mujj yi nekkatul Balla bi ko booy Niang daani tey looy wax fan sa Balla Gaye pour dalal leen ak loo gis ci Balla Gaye man daal li ma ci gis mooy kombaam da koy yàkkamti nam daan def attaqué mu jeex mënatu ko ko loolu ci ma koy conseillé ci kombaam bi mooy na dal di xaar kin ko booleel waaye bu mu fekk ji bu fekk jee day daan ok hmm. Balla bu fekkee jee Tapha Tine da koy daan waaw. ñu bëri dañ ne gàllaaj yi mu yoroon yoratu ko dafa dafa toj le wax ci loolu. mu ni mu ni gàllaaj yi. ma ne ñu bëri dañ naan gàllaaj yi mu yoroon yoratu ko. déedéet du gàllaaj gaa toj de. Hmm. la ngay la nga jàppoon ñaari at. Hmm. nee naa ko Balla. bul xëccati. ak takk xale moo ko man mais boo mhm. demee ñaari at ñetti at dootoo takk kenn doo bul attaqué bi na ko bàyyi na xaar la mu digal mhm. rakam na ko attaqué na ko daan bu bëri bi yàgg fu mu ko def day daan d'accord mais bu ñu léegi ci wàllu mystique actuellement fi lamb ji toll moo ko euh, adversaire am Tapha kan moo ëpp gàllaaj soxna si Mm-hmm. yow de dafa mel ne da bëgg a toog sama place. waaw waaw moom daal déet déet déet. dafa mel ne da ngaa bëgg a toog daal ci chaise bii nii di ma posé sama question moo ñëw ci chaise bi. <laughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ñu ngi lay jaajëfal bu baax laaj bi rafet na. Euh, tey sa xalaat nga joxe xam-xam nga joxe. dugg ci émission yu mel noonu ndax foofu nga toog sama kër la. d'accord. waaye da ngay dugg ci internet bi rek da ngay gis li ma. li ma li ma wax ci internet bi. bu soobee yàlla. yow allah na nga njëkk a dugg sama dikk ak Bassirou Diomaye Faye bi mu amee ñeent fan laal leen jël na réew mi wax ko Sénégal. incha allah loolu am na ca loolu am na. ca internet euh, TikTok boo ci duggee heure baag yépp la lay wanal. Mhm. kon xam ngeen ni yàgg naa jëf ca li ma jëf senegal a ngi koy jël yàgg naa jàppale ay doomu aadama mm-hmm. ñëwuma pour man kese du ma neenum neen neenum neen mën ta yarum réew lu waay mm-hmm. jàngul mënu koo xam maa ànd ak wa caake xasum siroo ginaar fandang kokku firindang wali kuuk firindang tangañ tangañ mutu fandang du am dara maam biram ko moom a yebal fii dafa mel da nga tàng de waaw yaram mi ngi tàng jërëjëf ah. jërëjëf balaa mu fay yaramam di tàng jinam yi di ko fekk fii te man ah. attanu ma loolu ah, wala wala wala <laughs> jërëjëf euh, bu ngeen defee ne moom rek euh, mu daal di leen di seetal waaye numéro mi mu ngi noonu di 77 701. 97 64. waaw ñu jégalu nag yàgg ci ligne bi ndax dana tax duñ mën a farañ fàcce. waaw si war a faram fàcce mooy nur waa Tiwaawoon Pël. ndax maa ngi dëkk Tiwaawoon Pël ak Pix. Mhm. kenkaari kaana rond-point Manoumbe képp koo xamante ni di may laajte foofu nga may laajte. man nag sama dëkk Ngay Jawaar la maa ngi nuy waa Ngay Jawaar yëpp di nuyu Pa Ousmane. mi nga xam ne tram. waaleykum salaam. na def. ñoo jàmm noo def. ñu ngi am jàmm. waaw ñun de borom guy moo toog. ah. guy gi de moo ngi nii toog. asalaamaaleykum. dana war a parce que réseau bi. da ngay wu naa de. d'accord nga ne lan. waaw parce que moom man man di wax ak leen mm. damaa nekkoon ci yoon bu met. waaw waaye bi ko sama yaay jotee. Mm-hmm. fexe na bu rek ba ba gisaat ma. waaw ba ma nekkaat ci wetam. Mm-hmm. lijjanti ma samay téye bi ma manqué woon yëpp. waaw ba instant bii nii. Mm-hmm. maa ngi dem Espagne bi waaw. di ko sant di ko santee yàlla di ko moom moom tamit mm-hmm. ndax lépp moom moom la jërëjëf parce que sama yaay amul woon dara te mënoon na koo seetaan te ndax amul lu mu ko fayee waaye bi mu koy jàppee te yàlla tax mm-hmm. boobu boobu ñun sama yaay jaaxle woon na trop ci doomam ji mm-hmm. waaw ñu ñu koy sant bu wér nag jërëjëf waaw di ñaan yàlla nga fay amiin waay jërëjëf jërëjëf rafet na kooku dafa jëflanteeg yow. dafa jëflanteeg man xam naa ni ndax li ci ëpp man ci wàllu kayit laay ñaanal moodu moodu yi. mooy ñi bëgg a tukki am problème kayit am problème mu kayit yëpp kayit bu mu mën a doon dañ koy arrangé ci ndomba gu weex googu ngay gis mooy mm. soldaar bi. Mm-hmm. moom xaru benn melo lañ koy ëwee. waaw ah, deretu muus bu ñuul lañ koy bindee. Mm-hmm. waaw comme euh, léegi comme dama ni damay leeral gàllaaj mm-hmm. amul lu ma la ci leeral arxuraan la mais deret muus bu ñuul lan koy bindee buñ ko bindee deret muus bu ñuul ba pare dañ koy ëw ci xaru benn melo mooy nomba yi yooyu ngay gis kooku mooy lijjanti këyit fu mu mën a nekk ak fu mu mën a nekk du këyit rek allo oui oui ziar naa leen dellu ziar bu wér eh, ana euh, guy gi guy gi moo ngi nii di la dégg vraiment kontaan naa ci li nga may def trop. jërëjëf. jaar. allo. xam naa réseau bi. réseau bi moo neexul. réseau bi moo neexul. waaye bu gën ma mënoon a may tuuti rek waa réseau bi parce que bëgg naa yoo xam ne soxna si bëgg naa mu révéler ko tuuti mais ba léegi mënuñu ñu may. Mhm. Euh, bu fekkee mën nañu may tuuti rek ñu ñu dugg moom tuuti ci waxtaan euh, ñu soog ibbaat ligne bi balaa ñuy tëj. te sax bu dul loolu xam naa du ñu mën a waxtaan. kii dugg naa yow sànq ci làmb ji. Mhm. Euh, Balla Gaye da faral di gis ci ay bëre da ngay xool ci bëre. di xool ci bëre nag. jàmm ak jàmm yaram kayit lijjante yooyu waaye yàlla suñu borom damay wan ki nga xam ne mooy lii. mooy jël ndam waaw benn yoon laa mas a waxee ci ci ay diggante muy président yi. Mhm. boobu Sénégal rëb na. Mhm. ku nekk naan ki yee toog boobu xalaatuñ ci Bassirou Diomaye Faye. ma xëy suba gént ko xëy suba daal di def vidéo ni Bassirou Diomaye Faye jël na réewum Sénégal. Mm-hmm. waaw bis boobu laa ci ma masee wax. waaye ay làmb yooyu doo ci wax. ay làmb moom mën naa wax kenn ku nekk ni boo yàkkamtee ya Balla Gaye moom yàlla wan na ma yàkkamti làmbam na ko dalal bu ko dalalee am ndam bu yàkkamtee day ñàkk. mais yéen tafaatin yéen seen bokk séeréer yi est du yéen a koy ngemb sax yéen. tafaatin waaw tafaatin moom wax dëgg yàlla gembu ko. Mm-hmm. waaye tafaatin gémm ma ko waaye ki ma xam moo koy gémm d'accord hmm. Hmm. am na jinne yi nga yor tamit mu amul jinne yi ma yore ndax man maadul dul faral di euh, wax ci làmb ndax Eumeu Sène ñëw na sama kër ci waawoon pël fekk ma fa hmm. mais comme man duma def làmb jàmm nit ki la mu jàng rek lay def ñi ngi may déglu wala ay mbokk ngi may déglu euh, man guy gi laa yaroo jàngalul ma làmb ndax boobu xëy na làmb xewul waaye liñ ma jàngal daal mooy faj ci ki nga xam ne taxaw na ci wàllu doom d'accord dama ci faj kii nga xam ni taxaw na ci wàllu këyit mhm. dama koy faj ki nga xam ne mi ngi sëyam ca sëyam delluta na gannaaw dama koy faj mhm. bayra ci wàllum njaay dama koy faj ki nga xam ne wërsëgam kar-kar kar na ko ba mënatul a fexe ba am dara lu mu yor fu mu di faraas jinne jël ko dama koy faj ki ànd ak jinne ba tàqali kook sago ki rab jënd yooyu waaw allo allo oui salaamaaleykum ay salaam bàyyi ngi sant bu alhamdulilah da nga bëggoon ñu seetal la. Mm, non non mère bi laa bëggoon dégg Ndeye Jojo. mu ngi lay dégg. allo Ndeye Jojo. naam. Abdou Mbaye. noo def Abdou. <laughs> waaw sant yaa ngi jàmm. maa ngi lay baax a baax. waa Pikine yëpp alhamdulilah. waa Pikine yëpp ñu ngi sant rek. waaw rek yàlla. ah ñun ñu dugg rek def suñu seere rek. waaw waaw. waaw ndaxte bi ñu ñëw jëw metti woon na lool. ndeysaan. ndax ay commerçant lan woon mbir mi jaxasoo ci ñun trop. wax nga dëgg. wax dëgg yàlla moom lépp lu noonu ci sotti na. yàlla suñu boroom. te amuñu ci benn jafe-jafe. ndeysaan yàlla ko yàlla la te lépp te lépp la sa jëmm jooju la jaare ah baax waa Sénégal. <laughs> waaw lépp jëmm jooju la jaare yéen baax ndax bi ma duggee talu maa nuyu Sénégal. tey mhm. maa nuyu extérieur. talu maa nuyu mhm. képp koo xam ni euh, jëflante na ak yéen. la moo ngi nekk euh, fële ca Pikine. dëgg la mhm. muy sama baax muy sama doom ci man sax. Mhm, moo xam ne seet seet rek moo lu waaw dëgg la de. waaye fa tabaarkàlla muy nit mhm. muy ku ma bàyyi xel. dëgg la loolu nag laa bëgg dëgg la gis nga sëñ bi sëñ Abdou Mbaye mii. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal njabootam. amiin yàlla di ñaanal waa Touba mu dëkk di ñaanal fii mu dëkk ci Ndakaaru. amin deful dara lu moom bu kooku moom sama doom la ki dugg nii. wala dëgg boole. waaye sama doom la. ngi kontaan bu baax. bu baax la ko ñaanal di ñaanal yàlla bi gën a leer ban selu xadim. baax waaw waaw jërëjëf Adi. ko man ku jàngul du tari jàng rek. la coow li muy bari bari ñàkk a la. dëgg la. nit da nga koy tarbiyu ak a wér. voilà. waaw jërëjëf nag nuyu naa leen. yéen waa ka jërëjëf jërëjëf ati. kontaan naa bu baax ci dugub bi waa ka jërëjëf ñoo ko bokk ñoo ko jërëjëf ati. jërëjëf euh, sëriñ Abdou ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. mais bëggoon naa aussi nga euh, ñëwal ñu si bu fekkee milieu showbiz bi. Hmm. ñu bëri dañuy toog fii.